dox ci diggante ceeb bu xonq <laughs> ab Pape Seras ceeb bu xonq na moom la bopp xonq waaye xale yi lu ne la ñuy tudd ceeb bu xonq ceeb bu weex bu am roof ak suul ak bëggëj <laughs> waaye xale yi ñoo neex ceeb bu xonq war a war ginnaaw ndaysaan ikiri Seex Mbaba la nekk moom ceeb bu xonq ma ngay laa ndeysaan Pape Seras sak xam sa cosaan la nekk ci ñoom ànd la fu ñoom tas yaakaar ñoom fils de Balla soq ndeysaan ma nga noonu daw nañ jëli ko ceeb bu xonk jëli na ko boobu paat boobu yoon nga ne waaye daanoo gul ndeysaan ceeb bu xonk jàpp na Pape Seras a ngay bañ ceeb bu xonq gi koy jéem a jël ci suuf Pape a ngi dóor Pape bu xonq ceeb bu xonq Pape ceeb bi am na suul déedéet du am suul ceeb bu weex mooy am ceeb bu xonq bi jën bi mbaa roof ko <laughs> ay jën bi yaboo la wala ma ci suuf ah Pape dee ngay dóor. Seras moom ceeb amu fa ndaw la fa am. laa ilaaha illallaah ma ngay door ci suuf ma ngay dooraat Pape Seras a ngay door ay waay Pape Seras bul tuur ceeb bi wala déet war na koo tuur wala ceeb bu soog xongo ñu jéem a jël ci suuf ceeb bu xongo ngay jéem a jël ci suuf ceeb bu xongo Pape Seras Pape Seras ceeb bu xonq arbitre bi àtte Ardo kuy dem ah ceeb bu xonq xonq na jaadu na ceeb bu xonq bu demee ba xonq jaadu na ndeysaan arbitre bi siflé woon na ceeb bu xonq ak ñoom ñaar a ngi noonu cey lamb ngi ñoom ñaari xale yaa ngi noonu ba tay ndeysaan Pape Séeréer saako xam déedéet ékiri xam sa la nekk ndaysaan ma nga noonu ñoom ñaar adversaire bi dem na ardo ba ñëw daw ceeb bu xonk jël na séeréer ñoom ñaar lu nar ceeb bu xonk dem na ardo ba te bu xonk Pape Séeréer Séeréer ñu ndeysaan caxabal na ko mu nar gars yi nee nañ ci programme bi ñii dañoo juum barki démb am lu ma dalal ci làmb ji Adama di reporté combat ñu ñu kii Pape Séeréer te ñu ngi ci programme bi Pape lan Séeréer Adama foofu ma Adama dimbali ma internet yi dimbali ma Adama kon action ba ma ngay continuer ba tey la ma waxoon kon looloo am Pape ak ceeb bu xonq ndeysaan ñu nga noonu ndeysaan programme bi ñu bind Pape Seras doom deewoo Mbagnick Kaïré boo ko gisee ni mu duggisee ci stade bi nga xam ne lu ci bàyyi ndeysaan la ca doom a nga ca bàyyi waaye la ca bàyyi nga ca doom wolof daan wala sama papa Doudou Yaye Kassé da wax naan yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana doom ju baaxam noppal baayam waaye baay ju baaxam noppal doomam ndeysaan boo baaxee lu ne mën nga koo am ndeysaan ñu noonu arbitre bi sifflé woon na Pape Seras ceeb bu xonq ceeb bu xonq Pape Seras ñoom ñaare ngi noonu pa ceeb bu xonq sangoor bi wala ñu xonq li ci ngemb li ma ngay ceeb bu xonq daw na jëli ko laay laay la laa wëcc nañ Pape Seras fàqat ceeb bu xonq Pape Seras tegal wala déet waaw waaw waaw waaw katapi na waay jéem waay ceeb ah! bi dañ koo roof am na taxaar ceeb bi saf na saf ceeb ah, bu xoox daan na waay ceeb ah, ceeb Fanta Mbaye ceeb bu jot ba ngay ñëw benn mbay koor gaa ngay ñëw oh dinañ la namm dinañ la namm dinañ la namm koor gi ñëw na dinañ la namm. jiili waaw dellu ziar. maa ngi maa ngi sant yàlla. yéen a ngi jëm ci ban journée waa rent DKR production. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi rek. Ah. baay bu sottee rek dinaa ñëw wax la. ñaari mbër yoo xam ne da leen a tëgg yéen a leen mujjee tëgg. kenn ki nee na daa bëgg kenn ki. muy Eumeu Sène junior nee na bëgg na Zarko xaw ma nag loo ci xalaat te yoom ñaar ñëpp yàlla mujjee tëgg. non Zarko moom jël na Baye Mandione quoi Zarko moom am na combat moo ko Baye Mandione waaw mais ñun ba tey bàyyiwuñu Eumeu Sène Junior ñu ngi koy utal adversaire ah. waaw Eumeu Sène Junior bàyyiwuñ ko bàyyiwuñu Marley ah. waaw ñoom ñaar moom ñu ngi leen di utal adversaire lan tax ngeen téye leen ñoom ñaar sérieux ay nit ñu baax lañu ay nit ñu baax lañu te soo leen soo xoolee suñu sortie bu mujjee bi Iba Mar euh, Marley daf ñoo yebal euh, réparé rakam moo nekk ci loge bi Nico Rell moo nekk ci port bi ah mooy wan ni ñun ñu ngi bàyyiwuñ leen suñu journée même buñ leen tëggalul ñu ngi liggéey ak ñun di ñu jàppale. kon ñun duñ ñu gën a góore ka daal ñu ngi leen di utal adversaire daal waaw waaw. Alioune Seye. <laughs> Alioune. eh Baye Diéli. naka wu. sant bu wér a wér. na ngeen jàmm. sant nañ baax a baax ñu ngi wax. waaw gars yi nag waxaguñ dara mais toog di xaar rek. lan moo tax waxuñu promoteurs chaque jour dañ laa war a woo di wax. waaw mais vraiment mooy yoon man sama kàlla gi nii tout prêt. gars yi dañuy dox rek ñëw ma rembetal stade bi bëri lu neex tuuti neex. course bi moom na daay. waa mais macha allah mais nag sant yàlla rek xëy na daa jotagul bu jotee rek dina yomb. waaw maa ngi déglu Pape Sarr. fan nga jëm sama jantal grand non maa ngi jëm ci làmb rek. ci làmb boole rek. keroog dégg naa benn booy boo laaj waaye xam naa donc loolu du say mbokk woowaatuñ la ci pet na la bàyyil mu seet. <laughs> non non pourtant. Ah. say mbokk lu ma bëgg loolu lañ bëgg. man aw ma yooyu noonu. ku ma làmb booree ci kàttan yàlla ñu bëri dugg géejawaay yëngal ko barki démb ñeme ñeme naa duggaat géejawaay nga jël parce que Serigne Mbam moo ma Saalum looy wax ni xanaa xanaa yoo xam Alioune Seye numéro 2 xam nga ki may wax waaye maa xam ki ngay bu baax a baax rëg rëg ngay wax parce que Serigne la Père Gaston woon léegi nga jël waaye su ma xam ne cin bokku safin laal Pape Sarr woon léegi nga jël waaye Pape Sarr moom la ci la nekk nii nee na xam nga nee ci man la des bëgg nga ko waaw bu baax a baax a ki non kii moom non non kii mbër ko war laaj Alioune Seye 2 dañuy waxante dëgg rek boo yi nekk fii moom ñoom ñoo war a taxaw ne jox leen ma Alioune Seye 2. mais gars problème mu Alioune laa xamul lan la lan moo tax booy kenn sawul. instant yii moom wax dëgg yàlla ci adversaire yi la. nañ gars yi sawaruñ ci gars yi sawaruñu xam nga rek gars ñoom lu yomb la ñuy wër te fii lu yomb amu fi. waaw damay entraîné comme ñoom di xeex comme ñoom di bëre comme ñoom di tuus comme ñoom di mobiliser comme ñoom. combat yëpp da ngaa dóor est-ce que doo téye loxo bi ak. non du loxo bi la jëm nag di nga dóor moom. <laughs> yi bëgg naa yi ma xool ceeb bu xonq. Eh, ceeb bu xonq eh. eh ceeb waaye na ñëw fii. na ñëw fii. manqué wul manqué wul dara. cinq potis ceeb bi am. ceeb koor gee gi ñëw dinaa la namb. dinaa ko kaay Adama kaay dinaa bëre bi nga bëre. dër man damaa mën a bëre. ñi ma àndal ni ñoom Ndiakhoum ak ñoom Baye Bala xam nañu ma école Samba Bala yaroo man foofu ma fay dem bañ ma fay yóbbu dama doon téye gars yi seen yi di jàng bëre di tarbiya xool nga ni ma toll ñoom ñoo ma ne da ngaa war a bëre yow yow da war a bëre ñoom ñoo ma ñoo def lépp ni ma da ngaa war a bëre yaa ngi barke alxuraan ceebu xonq sama kii ku bëgg ñu yaatal ci taarix la maanaam jékki wu ma jékki rek ne man ceebu xonq laa tudd oh. daa fu ma jaar moom ak tur yi parce que sa gi dinañ la nam koor gi oh, ah koor gi ah, <laughs> ah. noonu waaw da lay wane rek mu ngi woon ci entraînement yu wóor maanaam li ñu leen di digal rek mooy lamb da ngay entraîné léeg-léeg lu ñëw rek da lay jëmbale mais boo gisee mu tuus rek xam na kon tey am na lu muy indi li mu indi nag yàlla ko yàlla may ndam. Mbagnick nan ngeen ko préparé ak lan ngeen ko gisee ak xale bi muy bëre. waaw Mbagnick li ko préparé rek mooy que ñun bu ñuy préparé bu ñuy préparé en tant que ancien du ñu bàyyi dara dañuy préparé xeex préparé bëre te ku ñëw tey di gis xeex di nga gis bëre. koy gis ci moom. waaw mooy fit gi waaw fit bi dëgg na saa yi maa koy wàññi sax ba pare entraînement yi aussi doon na ko ci man waaw man man bu ma doon dama gëmoon ay entraînement leneen yi doog a ñëw loolu yëpp ngi ci moom macha allah. jaajëf fils. wala déet. Petit Volcan Pablo. Ndeysaan wala déet. ndeysaan xale yaa ngi noonu ndeysaan Guèye Saloum 2 ak Baye Fall ngi noonu ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ma ngay dóor ña ngay dóorante ndeysaan Guèye Saloum 2 ndeysaan ndeysaan ak. ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan. ñu ngay leewaatoo lu dara xew. ndeysaan. ndeysaan Baye Fall. moom la mi tudd. mooy laale ngay lum. deux. mu Mor Fadam. ndeysaan Baye Fall. de Fatick daan na wala déet ndeysaan xale ba daan na Magic siyaar naa la Magic siyaar naa la waaw ah, delloo siyaar waaw ah. waaw ñu am jàmm rek waaw moo ñëwee waaw ñu ñëw ànd suñu mbokk waaw waaw ànd suñu mbokk rek yaa bëgg a xam tey waa ci bëgg ñëpp ñu ngi ñëw boos la ànd ak yow mais lamb la non lamb la yaa ngi leen bëre incha allah lamb la nu mu doon mercredi la mais sinon mu nekkoon beneen jour. yaa ma gën a xam quoi. laaj léegi lan la doon ci yow mu ne fit gi. gis nga ko ci yow tey làmb ji fit da ciy feeñ. waaw làmb lépp am xeex ak bëreeg lépp yaa ma gën a xam yaa ma gën naa la ziar. waaw yaa ngi am ka. waaw ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. sa rakk di bëre. waaw nga ànd ak moom dooleel ko. ci biir tuus bi sax damaa gis ni jéen mooy bëre. lan la. waaw loolu man sax tayu ma ko. Ah. waaw mais xam naa mooy loolu làmb la rek affaire yi yëngu xam nga. waaw mooy loolu daal. waaw indi nañ ko ni ko daan indee waajal ko baax a baax a baax instant yàlla moo des te yàlla yàlla moo tali waaw. boo nekkee doomu mbër dugg si ci làmb ñu bari di la séntu fi boo ñëwee ci stade bi nan nga war a wane. waa fu laa fayda parce que doomu mbër mën naa ne chance la du chance chance bi mooy balaa ngaa bëre dinañ la xam beneen côté bi nag mooy képp ku bëre ak yow rek bakkanam la ciy teg danaan doomu mbër laay bëreel xam nga dañ koy favoriser wax ay wax fekk na demeewul noonu doomu mbër loo rayante rayante tamit te dafa fu laak fayda xam nga yaa ma gën a xam waaw noonu la demee daal doo mbër daal xam nga neex na neexul mais sant yàlla nak te dañ ci fier nañ ci trop. combat bi tey nan la ci Mbagnick mën a génnee. waaw Mbagnick fulla ak fayda loolu laa ko wax nee naa ko sa morom la jox ko cër dafa wàcc ci kër yow nga wàcc ci kër mu ñëw comprendre nga jox ko cër bi mu mat te cër bi mu ëpp boo waree bëre xam nga boo waree xeex xam nga boo waree def fula def ko fa ñu ñibbi waaw. yow ci lan nga nekk. waaw man maa ngi nii rek di xaar. gars yi lu ñu wax. waaw gars yi ñu ngi waxtaan ak paa bi nag ñu ngi waxtaan ak moom xam nga mais dara confirmé gul mais yàlla baax na. nga bëgg. waaw man ñëpp man làmb laa fi nekkal. am na ñoo doon laaj ñu ne duñ sa morom ñoo la ëpp public. ñoo la ëpp mbooloo ñoo la dàq bëre ñoo la dàq xeex. waaw non mbooloo moom ay mbooloo lay wax mbooloo. waaw te xam nga tey Marseille lu mu bëri bëri mbooloo du tëb dem liggéeyu Ligue des champions foog mu jël paie wala deux ci championnat doo ko dem. kon affaire du mbo sport du mbooloo mbooloo jagleem na nag yàlla moo ko defal te yéene nañ ko ko lool macha allah champion la mais na wax leneen ci jéen lu dul mënul feesal Iba Mar lamb preuve la te moom du lim mbër boo xam ne man daanu moo ko palmarèsam doo ci lim koo xam ne moo gën a kawee man ñi ma daan amul. mais surtout bu nee bëriwul ak yow kan ngay bëre. te ma dagal la ci tamit nekkul sama ambition moom ci lamb. bu dee sama ambition moom la kon jot naa ko ci làmb. lan a jaar ci bi lan mooy seen problème. non amuñ si ta man aw ma problème ak doomu aadama moom champion la ndaanaan la góor yàlla la xam nga waaw mais xam nga rek waaw ni mu waxee la rek laa ko tontoo waaw. bu dul si ta foo lamb maa ngi lamb am na catégorie bo ma dugg si moo daan ta laa jugee yàlla ma ndam am na catégorie bu ma dugg ñoom xam nañ seen bopp yàgg naa leen tudd affaire yi taxawul comme jaratul mu ne moom yow doo doom nga ci moom lan ngay wax ci loolu. Alioune Seye moo ma jàngal bëre Alioune Seye sama premier combat yëpp moo daan ñëw yàlla xam jox ma tànk bi ma ci ma koy jël di song di ci bëre mu may daan jël yu rëy ba ma dem ba dëgër ba ñu commencé muy metti ma ak moom. xam nga yàgg na kooku soog sama paapal la. écurie Waalo ak écurie Soumbédioune moom ak lu gars yi mën di wax dafa am lu ñuy sàmm muy la dëgër numéro ak sama papa maa ngi koy nuyu baax a baax di ñaanal bébé Diène aussi bu baax a yàlla génnee ko mu ñëwaat suñu biir parce que namm nañ ko lool te soxla nañ ko waaw jaajëf jaajëf gaynde Adama Ardo ngi noonu di ñëw moo war a bëreeg Mbagnick Kaïré dañ ko war a boot wala déet ndaysaan am na perkaal bu ñu koy ajal ci kaw ndaysaan ma ngay dem tegtal bi bari na ci làmb ji tegtal bi bari na ma ngay ñëw moom Ardo boot nañu ko ma ngay dugg ndaysaan gis ngeen ko koppati la def ma ngay dugg ndeysaan ma ngay dem ndeysaan ardo ngi noonu di dugg si ardo ngi noonu di dugg si làmb gi ardo dugg si na bopp nañ ko nag ci géew bi ndeysaan yëpp ay tegtal la ci làmb boot nañ ko mu boot nañ ko mu dugg. waaw bëgg naa sant borom Tuubaa maam jàmm baax. waaw yàlla ñu yàlla suturaal rek. Oh. yàlla ñu kaay. waay nu ñu indee plateau. ndam rek. waaw ndam rek waaw. <laughs> plateau lan nga gis ci moom en tant que xale. waaw pla moom combat bi ak combat na ndax ne combat doole ina entraînement bu wóor. waaw di ko ñaanal yàlla ndam léegi si kanam incha allah. Mhm. keroog da fii def surprise bu daan ki nga xamante ne mooy euh, nu mu tuddati waay. Jokkel nga daan ko jël bu jël boo xamante ne wanewaat na Ada Fass wanewaat na boppam ci làmb ginnaaw bi nga jógee ci jokkal fan nga teg sa bër ak ci ñan nga jon waa man du ma laaj benn mbër mais mbër yi ma war a bëreel xam nañ seen bopp du ma tudd kenn nag mais war nañ ñëw ñu bëree. xam nañ seen bopp. xam nañ seen bopp bu baax nañ ñëw ñu bëree. xaw ma leen mais nañ ñëw ñu bëree ñu ngi si làmb ji. waaw ku ñu seet yi ngay wax leneen nañ ñëw ñu bëree. ñooy may da xaar suñu biir. génération bi léegi damaa gis booy bu jug rek ne Ada Fass laa bëgg a Ada nañ ma ko jox Ada nañ ma ko jox te Ada mu ngi naan ñooñu xam nañ seen bopp soo ko waxul sa gars yi dañ xam fan nga bokk. non man pare naa bu bëreeg ñëpp képp kuy mbër nekk si laabu ji pare naa bu bëreeg yow mais daa ñu ma war a bëre si laabu ñu ma laabu boole échange bi. Mhm. ñooñu xaw ma leen mais ñoom xam nañ seen bopp te promoteurs yi xam nañ leen. Oh. incha allah ñu ngi siy dox yàlla taxaw ak jaam ak salaam. diggante ak mbay guy gi lan nga ci wax. non du ma bëreeg kooku ñun xam rek ñoo dëkk ñoo daaw lañ dëkk bëgg bëgguñu muy ñaaw ñoo bokk ñoo bokk fa même famille la waaw mais ñuy bëreel xam nañ seen bopp dañoo ñu bëree. dañu gis bi nga daanee ñëpp def affiche Ada Fass Mbaye Gouye Gui Ada Fass Mbaye Gouye Gui. la même famille. kon même buñ ko bëggoon sax diggante bi dafa xat. doo bëri quoi noonu la demee mais ñu ñu ma war a bëreel xam nañ seen bopp. xaw ma non ñoom xam nañ seen bopp. Hmm. te pare nañ fi bëreeg ñoom. kon nangu par nañ man par naa pour rek ñoom. maa lay jaajëf jaajëf jaajëf merci jaajëf. Zarko Zarko Zarko Zarko maa ngi lay siyaar Zarko. wasaare làmb. fës ñi nga am jaamu geen. dëkk bi wax nii xam nga def climat bu baax xam nga ñu def jeget ni relax. yaa ma gën a xam si làmb. non loolu ngay wax. combat boo daa wax ba ñëpp ne dañ lay daan. barki Serigne Touba ñu xam ne Serigne Touba amul morom kenn la du kenn. pànk nga nag billaahi ah. pànk nga pànk. maga ma yar nag magub lébu moo ma yar moo ma foog mu pànk. Zarko actuellement daan nga. mbay guy gi ñu bari ci làmb di la tàllal loxo keroog bàyyi ma njoon gis naa seen combat xaw a am kii ma jël ko mu def sorti ne ma da koy jël par ci nii wala ci nee lan la yéen sa diggante ak bàyyi ma njoon ban problème ngeen am. non amuñu problème combat la ñuy dox combat bi taxaw na. taxaw na ma nag ba Ndione dof bi jël na dof bi arbitre bi dof lay doon. Ah. dafa leer. <laughs> yi sax dof la ñuy doon ñëpp dof la ñuy leer kenn du nitee. Baaba Ndione dugg na ci xew dugg na ci gaal boo xamante ni xamul fu mu koy yaxale te sama cag bi foog ma teg ko fole caaro yi. Hmm. billaay walaay ma jógee ci moom rek jàll ci keneen. Baaba Ndione men. jaaxal lu ma def xoyantaan fii. yow Baaba Ndione dawul sama yaram. xoyantaan Gambie la ñoom Gambie yet la ñuy xeexee fii Sénégal loxo la ñuy xeexee. du benn na dañoo miis dóor lan laay séntu sa diggante Baye Mandione ndax ñëpp xam nañ ne Bakar Reug la te du dellu ginnaaw. dama koy dóor ba mu daw génnee boppam. Baye Mandione Baye Mandione. Ndione dama lay dóor ba nga génne sa bopp làmb ji. Ndione mag la loxo yi daa kàpp mënul laaw mënul mënul dóor. loxo loxo yi dafa def nii comme bombardier. du jab góos day laaw rek. donc saraxam jafewul. non dafa leer. mbuusu meew la rek ak sondal juróom. li ma jaaxal mooy diiraa bi nga nekk Espagne yëpp gisuñu Zarko mais bi mu ñëwee dañoo yaakaaroon di nga perte repère da ngaa ñëw rek bokk bokk bi lan la. Zarko c'est un gladiateur du perte repère ci dara jamais kaa xeex moo ma gënal kaay lekk moo ma gënal kaay naan ma laa nag ngay xeex ba pare ñu lay fay nan ma ray gisoo lii léppay teppeeku ragaluñ ci dara. bilaay bu dee dóor mu teppeeku rek ak dóor mu dagg mooy tax nga fayeeku non man damay fayeeku par force par force damay fayee kenn du ma tere. Zarko ñëw na Sénégal samp pour fas yéene laal yëpp duma leen may dara ku ci ñemewul lu teppeeku bul jël Zarko bàyyi ba jour contre bàyyi ma ñoon ci laa leen di confirmer war nañ leen ni Sénégal man su ma amoon lu ma gënal làmb ji ñu def ko MMA. MMA làmb ji nii buñ ko defoon MMA dinaa fi dóor mbër ba mu daw tëbal boppam barrière yi. billaay wallaay taalaay lii dafa yomb trop. billaahi xam nga dama koy wax gars yi foog may foo mais lii dafa yomb nga ñëw nii nii nii daaneel benn nit rek après gagné nga bari Serigne Saliou c'est le cadet moo gën a tuuti mais buñ ko defoon MMA nga dóor nit ba mu daw génn man boobu laay gën a kontaan. kon su mbay guy gi li nga ko def doyaloo. doyaloo ma billaahi walaay. dafa yomb dafa yomb bari Serigne Saliou. moo tax moo tax ma ne yoon eh, ñoom Pape ñu def ko MMA moo ma doon gënal man. mais daf na daa am loo ko sotti. avant lamb ji donc ko atteindre mystiquement. donc du mystique foog mu ñam ci gereesu mbaam bi ukkambe bi foog mu dal ko ma wële nu mboos ma njàkku grand F foog bi dal ko. non gereesu mbaam bi laa ko xeeñal yàggu ko xeeñ foog mu wàccu. Zarko ku ko laal di nga laal gërësu mbaam bi dafa leer. même Baye Mandione ñam da koy ñam force la Baye Mandione est-ce ñamu ko bu yàgg sax yónnee naa ko gars ñu yóbbu ko gërësu mbaam bi. ah sama mbokku Haalpulaar yi onoon Badara Kaalpulaar man calmini woon na feewi ñaaga men heeɓi combat minen e mbama ñon ñaaga victoire belɗo e dow makko wasalam jaajëf Zarko diggante Pablo ak Petit Volcan Volcan Pablo moo la woon ginnaaw mbokk yi Petit Volcan moom nga jàkkaar lool ndeysaan Pablo ak Petit Volcan Ousseyn nga ni. mooy rakk Alioune Seye. mooy Pablo. moo taxit daan nañ ko ba ngay wax ak ba may todd weeg ko daan. loolu la kenn mës koo eh, la. Eh, eh, wax ni ñu la. Ousseyn am na. ndeysaan. arbitre baa ngi waaj a sifflé wala bokk ndaysaan plateau moo la woon ginnaaw ndaysaan mooy laaleeg ci plateau cokkaas da waa combat bi lu mu nar ndaysaan ak booy bambal ndaysaan plateau ñu noonu ndaysaan plateau plateau Boy Bambal ndeysaan plateau daw na jël ko plateau jël na ko sol na ko Boy Bambal bañ na ndeysaan plateau ngi dóor ci suuf plateau ngi dóor ci suuf arbitre toogal plateau Bambal ñoom ñaar tolloo nañ doole plateau ngi dóor plateau ngi dóor plateau ngi ci suuf plateau ngi dóor ndeysaan plateau ngi dóor ñaari xale lañ plateau booy ba pombal ndaysaan xeex booy pombal fay na téere yaa ngay dagg bu daanu du am booy pombal a ngay dóor plateau sol ko caxabal plateau bañ na booy pombal plateau ña ngay di laal li ndaysaan ña ngay laal di laal plateau booy pombal ndeysaan plateau boy bombal plateau boy bombal ma ngay xeex ña ngay xeex dóor mu daanu dóor mu daanu plateau dóor na ko dóor na ko dóor na ko mu daanu plateau dóor na ko mu daanu eh plateau dóor na ko mu daanu plateau dóor na ko mu daanu eh plateau plateau dóor na ko mu daanu li si kanam koy dàq. Ababass ndeysaan. daan na. dama fula. kese. mais dama mel ni booy Plateau tey jii nii. waaw bëre bi góor na góor bi. dañ koy yab moo tax dañ koy yab. mais sa combat. waaw ku ñëw baax na. ku ñëw baax na ku ñëw baax na. mais ñooy wax moo ku ñëw baax na. ku ñëw baax na. am na solo incha ngeen ñëwee. sant lépp jaam. nu ngeen ñëwee. sant yàlla rek lépp jaam barke alxuraan. fan ngeen nekkoon ba 18h wala 17h50 ngeen doog a dugg. non pourtant ñun làmb rek la ñuy def dañuy làmb xam nga ñun ñu làmb. amaana tardé nañ mais sëñ Fallou. ndax ko ñu moo xewle. sila ma ko ardo. bu leeri hande barke alxuraanu karim. déggoo ma de làmb daamu jërë sa maa yi. mbër doomu mbër. loolu ñun lijjanti wuñu loolu ñu ay Baay Faal lañ ñun ay sëñ ay taalibe Maam Saliou Fall lañ ñu mu lañ ñu def ko Baay Jiili <laughs> ndeysaan dana wax sàcc ba pare sàcc ba pare li mooy yoonu làmb ndeysaan wax na làmb garaaw Adama <laughs> rek bët lay joxe de. am na solo tëggkat yi. jiili wasaare utal soxna. bu Dakar boobu sama xarit yaa wax la. morom yëpp nan. waaw yaa ngi di utal soxna ndax soxna jigéen da laa ah, jiili wasaare. jigéen da laa géndaliku. ah bu sa kaa yi am na ñàkkul nga am malade boo xam ne. dégg nga damay faj ko yaa ma wax loolu. man de liggéey bi jaamu yàlla ko jàppee. yàgg na ci réew mi ah. ak Pato Pato ak Zoss Baton ak Zoss Zoss doon na daw ñëw waa Zoss mi lu muy def Zoss mi est-ce am na garde Zoss mi lu muy def Zoss mi lu muy def Ousseyn ndeke mag lu mu doon def ba dee bu dekkee ba ko de. ah bu dekkee ba ko. plateau dóor na mu daanu de. plateau dóor na mu daanu mais est-ce que xam nga ne plateau dafa bokk ci làmb. Ah. ndax premier combat bu ñëw am coow loo xamante ni xaaw ko woon ndax xale yi ku ci nekk dangay ngay rente pour am coow mais moom moog loola seen coow da leen ci làmb moo tax tey gis nga dafa ànd ak sérénité boo ko xoolee sax xam na dafa liggéey liggéey na moom mooy Boy Plateau mais waa Grand Yoff depuis démb ba tey neex léegunu ah. mooy seen troisième combat ndeysaan démb am nañ defet tey am nañ defet bi mooy seen troisième combat mbokk yi ci diggante Bato ak ki nga xamante ni mooy Zos diggante Caaroy la ak fi nga xamante ni mooy Grand Yoff kan moo jugee Caaroy euh, Bato moo jugee Caaroy Bato Bato Bato non non diggante Grand Yoff la ak ak ak ak jàmm gën ak jàmm gën Bato moo jugee jàmm moo jugee fee Grand Yoff waaw ma ngi koy dóor waa Zos mi Zos mi saf na de. weex na xat. xool ko. Zos a ngay dóor. Zos a ngay dóor bato. Ndeysaan Zos a ngay dóor. Ndeysaan Zos a ngay dóor. Ndeysaan bato Zos. ma ngay dóor fekki ci suuf. Ndeysaan ma ngay dóor Ndeysaan ma ngay dóor ñu ngay xeex ci suuf ñu ngay xeex ma ngay dóor uppercut mbëkk wala déet i koloj lépp am na ci làmb ji waaye sos na sàmm ay tànkam ma ngay dóor di sigi di dóor di sigi na sàmm ay tànkam bato bato ngi nduur rek kenn xamul la lay liggéey nag ndax xam nga géej lu nekk ngi ci boo nuuroo am na looy seet bato nag la muy seet kenn xamul lu mu doon. mais Ousseyn xeex daw jàppante ak dóorante ban moo ci daa. <laughs> Gare Jalle Zos jël nañ ko Zos mot ma yenu da koy daan Zos daan na ko. Zos amati nañ defet amati daan na ko. daan na xale bi daa saf làmb de. génn sa papa gisu la. lu tax boo waa Sénégal ngay seen kër. daal di. ak Dubaay. waaw loolu la yàlla dogal maa ngi lay ziar bu wér. Uh-huh. jëli man tey dafa am lu ma seetlu. loo yi nga sol bi ngay génnee seen kër kana sa papa gisu la. daal di. waaw sa la kay. lu tax mu seetaan la nga sol li. di bukki bu la daaxee boo ko sànnee mu dëpp. <laughs> barke yàlla da ciy reer. rafetul. wax dëgg da nga ñoo yàpp respecté ñu waay. wax dëgg pour man fi toll nii maa la gis ngay reer te ngi toj dëkk bi. Ah. fee a fekk gars di la wokkante sa moromu journaliste yi. loolu li ma sol. xam nga boo defee erreur duñ la ko wax dañ lay wokkante man dama man moom dama neex li ci nekk ah. booy ñëwati. mais daal li ma sol moo gën a seet sa ensemble bi nga sol. waaw bu neexee nga ko. waaw nañ man Nike original laa laal ñetti étoile yombul ci daal original ko wane. ñetti étoile Nike original. yi lu ci original. non waxuma la original du ko am. ah non ñaari dàll yi bokkuñu. jag na Dubaay ñëw instant yii teewatoo sa bopp. ah. kaay yow tamit kaay. 28 lay sol. dàll bébé la dàll bébé. xoolal loolu moom dàll la. Ah, ah. xoolal ñaari dàll yi xoolal ñaari dàll yi. non xaadim yow tamit war xool sama dàll dàll. sa tànk yi ndaw ma trop. dàll yi nga xam ne kenn yaa koy sol léegi di ko di ko entraîné. yaa ngi jëm ci le 20 mars. mu nekk journée boo xamante ne journée sargal jigéen la drapeau bi su ngeen fils de Balla góor a sox lan lañ ciy waaj ci Jamaïcain parce que xale bi xam nañ ne da ngaa waane da ngaa doy. waaw non stade bi dafa maa namm te dafa ko am jom ndax bi ma fiy géej le mars la woon Franc Bébé Saloum ma génnee ci boo yoo xam ne tey promoteur buy tëgg dina leen ci boole kon su ma fi waree del dellusiwaat dafa am lu ma fi war a wane ñu ne Gora Sock na Fils de Balla Gora Sock Fils de Balla doy na bés ma jël combat boo xam ne promoteur bu ko tëgg grand combat nga koy def ku ko ñemee def spécial jeex euh, kaw góor Ronaldinho kenn kenn du ko def spécial ku ko grand combat la grand combat nga koy tëgg ma dugal ko ci jeex jàmm su lay gaynde mooy drapeau bi nga xam ne moom laa jagleel bépp jigéen buy liggéey ci lamb presse oh, en ligne bi. waaw ndax ñun mënuñu sargal jigéen ba pare ñoom ñuy liggéey ak ñun ñu bàyyi leen ginnaaw. kon affaire bu dëgg si ñun bébé diwaan Yaxin Bambi Lor. fils de Samsam Mama Lamine 2. wulli ak Kalso fu ñu dajee xeex. loolu mooy lamb ju nekk. combat boobu rek doyoon na grand waaye nag amis boobu soo ma ko mayoon grand combat laa. nga koy def ndax fu ñu dajee xeex. ñu jël grand combat bi sargal bii su ngóone ndax kenn mënu ko génnee ci lamb. kaw gouverneur dina ñu tuddee ko soxna Ayda mu Serigne Saliou jàmbaaru Serigne Saliou nga xam ne li tax ma gën ko naw jili ñoo bokk dëkk benn koñ rek doyul. waaye Coupe d'Afrique bi dafa jot. ñëpp di génn def vidéo Sénégal dañuy du àgg fii du àgg fii muy génn di dëggal boppam bu Sénégal amee max mu génn ay millions def ko sarax wane ko àdduna bi yëpp di ko gis moo njëkk a gën ne coupe bi day ñëw kooku nag bu defee jaloore jooju wax dëgg yàlla bu ñuy sargal jigéen ñi mu ñëw sargal jigéen ñi génne ko ci muy sunu yaay nekk yaay Wally Seck yaakaar naa bés boobu moom Sénégal yëpp a xewle maa ngi woo ñëpp dox ñëpp rendez-vous fii incha allah rabbi le 20 mars. Euh, ñu def si loo xam ne nii ah dinañ xale bi ñëw na. wuyul ma ni ma war naa cee am noobul bi. mbër boo leen joxe yére duñ ko sol. bañ a sol man du ma mbëree yow. moom bu la ñëwalee ko ñu ngi wax. gars yi ñu ngi wax yaakaar nag. combat baax xam naa ñu ngi ci waaw ñu ngi koy dox nag def ci kor rek. xam naa waaw xam naa. jàmm gën pikin. en tout cas da ngay duggaat ci lébu yi nga duggoon. en tout cas la dëkk. ci banlieue. waaw ñu ngi ñaan yàlla mu sotti rek yàlla suturaal ñu may ñu ndam. am na coow. waaw am na coow bu baax a baax. mën na xeex. lépp lay def day xeex day bëree. waa ji mën na bëri. waaw combat tey ngay kay moom. am na defet. ah. am na defet. waaw am na defet waaw. defet yi bëri na wala dafa néew. non non néew na. ñaari defet ñett wala ñeent. <laughs> non loolu na xaw ma ko daal am na defet am na victoire. Ah. waaw parce que damaa jëlee Ahmed Deme mu ne yow bokk nga ci xale yi mu bëgg a may sens. bëreeg ñoom boo ko déggee lan nga koy wax. waaw yooyu ñun dañuy sant yàlla rek xam nga ñun defuñu fi lu ñu kenn di laajee ñoo ñoom ñoo si làmb kon bu ñëwee ba ñuy laaj sant yàlla ñun amuñu pour bañ xam nga ni promoteur mooy tëgg làmb comprendre nga staff man nekkuma bugul benn mbër sama staff ku ñu d'accord si kenn ndax amaana tey jii nii ñi yëpp ñoom ñoo si lamb kon tey jii nii loolu loolu pour man loolu sant yàlla kese moo ñu si war mais du dara amuñu pour ne kii la ñuy bëreel wala kii duñ ngaa bëre ak Ahmed Deme non déggoo li amuñu pour tànn kenn ku ñuy bëreel mais képp koo xamante ni waxtaan nañ ak suñu staff bu ñu d'accord ñun pare nañ pour bëree waaw mais nag bu ma sañoon sama grand guy gi may ma sens guy gi ma guy gi benn bi bu écrlil moo faram loo yebee guy gi du moteur non du yeb damay ñaan sens xam guy gi damay ñaan sens dama war a may sens waaw da may ñaan chance rek xam ñoom bañ ci tolloo dañ leen may chance kon nañ ñu may chance ñu bëri rek lamb ji neex ko du sori bi ñu jógee ci rek rek juum may la chance waaw mais loolu dara loolu dara lamb la rek lamb ak looloo ànd lamb ak looloo ànd en tout cas daal ñun moom la ñuy taalal loxo bu mu may ñu chance kan kan ngay ñaanaat chance waaw non guy gi daal bu ñu may guy gi daal fi ñu daal man mooma gën guy gi point waaw guy gi géej waay guy gi rek waaw géej waay bu dee géej waay moom guy gi rek laa fay ñaan chance wax dëgg yàlla waaw guy gi ñëpp ku ñëw nga waaw guy gi moom keneen ku ñëw mooy loolu ndax nekkuñu fi bëri benn mbër nag mm. waaw mais dañ koy ñaan chance rek mu may ñu chance ñu bëri waaw jaajëf bàyyi non Ardo loo indi waaw comme liñ liñ tàmm def rek incha allah ñu ngi ñaan yàlla ànd ak ñun léegi mbër ngay bëre loolu amul solo Sénégal ñëpp ay doom mbër lañ soo bàyyi fa weewul bëre amul fii xeex wala bëre lépp incha allah ndeysaan nee na lépp xeex wala bëre mu ne ma lépp mbër yi ñëpp lépp la ñuy indi. ndaysaan ma nga noonu. Mamadou Diouf. fils de Aline Seye xale yaa ngi lewaatoo Mamadou Diouf door na. Mamadou Diouf numéro 2 moo yor ginnaaw. fils de Aline Seye dooraat na ko wala boog Mamadou Diouf dooraat na Aline Seye. fils d'Alioune Seye fils d'Alioune Seye Mamadou Diouf eh Mamadou Diouf daw na jël ko jël ba sooy na fils d'Alioune Seye eh Ama bi mooy drapeau jaaykat yi plaqué na ko Mamadou Diouf Mamadou Diouf dafa bëgg a jeexal làmb ji Mamadou Diouf xeex nañu jël nañ la Mamadou Diouf jël nañ la dañ lay lay daan fils d'Alioune Fils de Alioune Seye daan na ko Mamadou Diouf bu ITV daanu na Mamadou Diouf bu ITV daanu na Mamadou Diouf Mamadou Diouf daanu na Adama mën na nga jël ko fii Cheikh nuyu naa waaw Ousseyn sama xarit ci loo ne borom Wassare maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay mais tey gis nga taxaw ak euh, Mor Mbaye lan la. waaw li tax ma taxaw ak Mor Mbaye Ousseyn àdduna yàlla suñu borom sax dañ koy tooñ jéggalu ko mu jéggale te àdduna ku dul juum amul te Mor Mbaye dafa bokk ci làmb di dundal làmb di di di tasaare làmb di dem ci région yeeg fu ne ci àll bi di tëgg ay combat ñëw Dakar di def bay waaram ci làmb kon àdduna nit ki bu tooñee mbaa mu def naka sudul noonu ñoo teg koy daan mais jéggale dafa war a am te kii seenu géwél la te Ousseyn ab géwél kenn du ko aj Géwél Bira Sène sunu papa laay waxal ndax moom borom xol bu rafet la te nit ku baax la li nu bëgg mooy mu aajul ñu Mor Mbaay mii mu continué ay activité ak lu mu mën a def ci àdduna nag nit ku dul juum amul. te dañoo bëgg nag mu jéggal ñu te yàlla tax Géwél gépp nag damaa bëgg ñu jóg Père Mansour Mbaye suñu maam la ñu ngi koy woo di woo Bekaay Mbaye di woo ñoom ñëpp daal képp koo xam ne géwél nga mbaa ngay sénégalais ñu lay woo nga wax ci Père Bira Sène mu jàpp ci aji Mor Mbaay mii bàyyi ko mu doxal. ndaxte kat nii moom làmb arbitre bi ngi xool Ndiaye Diène moo la woon ginnaaw tent bopp bi doomu Kajoor nga jàkkaar lool combat spécial baa ngi noonu Adama ndaysaan journée Ama Dia production ndaysaan le 9 3 deuxième mois deux mille vingt deux. ndeysaan mooy le 9 mars deux mu ngi waaj a sifflé ndeysaan doomu Kajoor Njaay Jeen doomu Kajoor Njaay Jeen doomu Kajoor Njaay Jeen am na lu muy bind. arbitre bi sifflé na mbokk yi doomu Kajoor Njaay Jeen doomu Ouzin doomu Kajoor moo la woon ginnaaw Ndiaye Diène nga jàkkaarloo Ndiaye Diène moo la doomu Kajoor nga jàkkaarloo. mbokk yi ñu xale yaa ngi noonu ci digg géew bi waaye lewaatoo bi soriantoo na kii di Ndiaye Diène dafa benn morceau bu mu teg seen diggante moom la doomu Kajoor jàll ko wala boo fekk si ko moo tax gisoo lewaatoo bi ni mu soriantoo maa ngi nuyu di léegi nee na kii di Ndiaye Diène moo njëkk a fii ci arène national bi. moo ko inauguré. waaw moo ko inauguré ci lutte avec frappe. taarix da koy fàttali histoire da xoola boo xoolal moo ngi dem ci morso ba. daa bëgg a fekk si ko. Ndiaye Diène lu mu fi amoon ndam wala fi defet Idi Ndiaye Diène ndam la fi jëlee. ndam la fi jëlee ah, waa du jeex de waa bu doon moo daanu ñu ne moo fi njëkk a daanu ci arène nationale mais moo fi njëkk am ndam ci arène national moom Ndiaye Diène. moo taxit arbitre baa woo di wax ñoom. Sunjata Pape Sène abit bi sifflé waat na Ndiaye Diène doomu Kajoor doomu na xoolal moo nga bëgg a dindi moos na ko dox fekk si ko liwaatoo bi bar na eh <laughs> Ndiaye mi ngi saf na de Ndiaye Diène doomu Kajoor Ndiaye Diène eh, doomu Kajoor gardam Ndiaye maay moom Ousseyn dinaa xeex ah waaw xeex mënu cee ñaan maay moom du ma jàppante waaw xeex bi engagement am la parce que Ndiaye Diène amul da daan da ah, daan na ko Kajoor ak Bawol Ouzin. xale bi dafa nekk ci làmb. Kajoor ak Bawol Ouzin. xale bi dafa nekk ci làmb. Kajoor ak Bawol Ouzin. xool ko. doomu Kajoor daal protestant ba. yaay jël daal lu jël ko. xale dana war a bàyyi di favoriser gàllaaj tey entraîné. Ouzin waxati ko. dana war a bàyyi favoriser gàllaaj bi. Ouzin waxati ko xoolal moo nga tekki sa ngoore. Eh. Ouzin waxati ko non nañu bàyyi gàllaaj yi tey. entraîné wax gàllaaj yi moment bi boo jàppee ndigali maa ngi ci fekk ay sagar yu bari. sëñ Fall dafa am lu ma waxoon. bu la nee na bu boo deewee. waaw ñu xool sa ndigg fekkuñ fa lu mat juróomi kilo. waaw deewoo da ngaa xaw. ok bàyyi xale yi gannaaw gàllaaj yi ñuy fa. waaw non déedéet nañ bàyyi li ñuy def te liggéey. <laughs> non non non non non Ousseyn non non. les gens doomu Kajoor a ngi noonu di ñëw Adama. doomu Kajoor a ngi noonu di ñëw. non non non non. suñu gannaaw la dëgg ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax. ndax day jàpp ci combat yi cinq heures du yeewu ñëw yu ñu géej ñu liggéey la ba ñu bëgg a dee billaahi bëre bi façon bi nga bëree ndax dañu gis nga xeex daw ñu yaakaar xeex bi daf la arrangé damay mbabat même même bu dul lamb ji damay mbabat fan yëpp ci àll bi mooy sa ñaata combat bii mooy sama neuvième combat huit victoire waaw man kii daan Mandela Mandela bu Mor Fadam waaw man gin bu yoof ñëpp ku ñëw baax na ah. waaw moom xam na loolu sax laay laa na ñëw rek bu ñëwee dinañ xam ndax dina wala diisul waaw.

ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ci géew bi Ardo ak Mbagnick Kaïré loo xam-xam ma demba ma demba gën laa xam boppam bokk nga ci ñi leen njëkk a dalal plateau boobu combat bi taxawu gudd wala ñu ngi ko doon dox tey ñoom ñaar ñu taxaw ci digg géew bi nan nga leen gisee Ouzin baa ji ñoom ñaar ñëpp pare nañu ñoom ñaar ñëpp pare ndax boo xoolee kii di Ardo boo xoolee combat ma diggante moom caat fora ak tay am na changement bu bëri boo xaw ma ne am na ci waaye mystique bi dafa bari ci côté am dafa concentré ci mystique ba bi ba ëpp kii di Mbagnick booy xool wax naa koo ko ci open press daa mel ni dafa xaw a wàññi poids kenn xamul nag lu waral wàññi poids bi ndax boo xoolee ba demee open press am laaj naa ko ma ne ko combat bee passé li la gën a yàqal ci combat bi mooy conseil bopp taxawal nga déglu taxawal nga téye sa bopp est-ce mun a combat yi maa nag li sama problème mooy ñoom ñaar njëkk dem. ndax combat bi loo gàtt gàtt gàtt xel ak loo tëxët tëxët tëxët di nga xam ne combat bi dañuy xeex mais xeex bi non mënu ñàkk par force la laa la wax. xeex bi avantage kan la. xeex bi avantage u Mbagnick la xeex bi avantage u Mbagnick la mais ci kaw bu xeexee mu sàmm ay tànkam. moom Mbagnick moom Mbagnick loo ci mën a xam ba mën koy xam ko ci mooy am na ku ma ko wax sànq nee na ma est-ce que Ardo est que Mbagnick xam na Ardo ma ne ko looloo question bi Ardo noo koy gis nii. waxoon nga ko keroog bi mu leen dalalee fonk na làmb bëgg na làmb te am na fu mu teg làmb mais mbañik tamit daanaan la ndax moo duggee seen biir kër ne pas sama papa mbër la sama mag mbër la man mi tamit mbër la kon koo doo ko jàngal bëre doo ko jàngal làmb boo xoolee moo njëkk pare waaye làmb ji njott naa nag dinañ gis làmb ju neex baa jiili Ama Dia ñoo ngi bu baax ndax combat combat jànk yi ku ne bëgg na ko ay xale nga tëgg leen grand combat na bàyyi jiili. ayca arbitre Ardo moo la woon ginnaaw Mbadji moom nga jàkkaar lool mbokk yi Amadia production le 9 décembre le 9 mars 2022 fii ci arène nationale ndaysaan mu yi mu tombeeg mu nekk journée boo xamante ne ñaari xale yi ay jàmbaar lañ ay garmi lañ ay mbër lañ kii di Mbadji Kaïré doomu Boy Kaïré la Boy Kaïré mooy bàyyam moo indi Ardo nee na fii ku fi bëriwul baay bëri na mbaa sa nijaay xoolul loolu Ardo jiital tànk càmmoñ Mbagnick jiital tànk ndijoor Ardo nekk garde normal Mbagnick nekk fausse garde tànk bi fi mu toll ni bu ñu doon xool ci lecture lamb tànk Mbagnick moo gën a jubbu tànk bi Ardo teg moo gën a jubbu Mbagnick que tànk bi Mbagnick tegal Ardo ñu xool ba xam ñoom ñaar fan la ñuy mujjee arbitre bi soufflé na ñu ngi leewaatoo Ousseyn. Mbagnick dafa mel ni ku bëgg dem xeex ma gis a mu am ci. foo ñu xeex ñoom ñaar mënul ñàkk parce que loolu mooy tijji buntu mbañik pour mu bëgg a bëree Ardo foo mu xeex ak moom pour mun a am li mu bëgg ndax ko tuusee fa mu ko bëgg yegg dana ko fa yegg mais est ce que Ardo dana ko ci bàyyi ndax Ardo loo ci mën a dégg ba dégg ko ci amul benn combat bu mu bëree combat bu yomb wala combat bu gaaw combat bu mën a bëree da ciy xeex da ciy bëree mais est tey xeex bi dina ko may ki nga xamante ni mooy mbañik kay bàyyi ji lii. ayca Ardo mbañik Ardo ba woon ginnaaw ngemboo ngemb Magic moo la féete càmmoñ ngeen boo gemb Lagos bi am na lu weex luy lang ci ngemb Magic bi mystique yi bëri na tegtal yi bëri na xarfa xuufa yi na waaye actuellement fi mu toll rek mooy feeñ wàcc ma daan na wóorul ku daan da koy féete kaw Ardo Magic ñu ngi ci combat bi ñoom ñaar Ousseyn est-ce que xaaroon nañ round d'intervention am ci làmb non munu cee ñàkk mënuñu see ñàkk parce que loo ci mën a dégg ba dégg ko ci mbañ kayre même comme que Ardo ci victoire la jugee mbañu jugee ci defet lu mu yàkkamti yàkkamti yàkkamti dañ naan ko ko. parce que ñaari mbër bu ñu ba di naan comme ba di leen naataable rek combat bu jaadu te ñoom ñaar ku ci nekk xale lamb da laa bàyyi xel mbañ ak ma ah fii du sama place ci lamb ndax man ay ñoom Bulldozer laa dajanteel ay ñoom Jacob Bale laa dajanteel ñàkk adversaire la. adversaire de taille la ndax xale la boo xamante ni li mbër di wër moom am na ko mbër bu ci nekk da ngay ñu xam na wala nga am tur Ardo am na tur boobu te li may mooy liggéey ak sérieux ci boppam kon Mbagnick nag dina ko jox temps bi temps bi mu laaj dina ko jox ba xool lan la Ardo andi ba noppi mu doog a jëflante ak moom. ndeysaan ñoom ñaare ngi noonu dégg ngeen Ousseyn li mu wax ci combat bi dox ci diggante Ardo ak Mbagnick Kaïré ndeysaan combat bi yàgg na ci xarfa xuufa. yàgg na ci préparation ma ngay bëgg a yàgg ci bëre ndaysaan Ardo actuellement mu ngi koy déglu di xaar lu Mbagnick téye Ardo bu doon maa yee ma sàmmal sa tànk bi ndax Mbagnick ci tànk bi la jëm day cokkaas ak waaye dina jëli Ousseyn wala yaakaaroo loolu. jël jël la tànk tànk ba lu ma la waxoon Ousseyn lu ma la waxoon. Mbagnick jël tànk ba fa mu yegg sooy na fa yegg sooy fa mu koy yegg sori na waaw waaw xale yaa ngi bëre. Eh, je suis si content je suis très content takk na ko est-ce que Ardo dina ci génn. mën na cee génn. mën na cee génn takk bi dafa sori. te boo xoolee kii di kii di mbañik ndaama la am na yóotu bi mu yóotu risque lay doon ci moom moo ngi koy tegal 16 da koy mbot da koy mbot da koy mbot yegg yegg jugaat nañu da koy daan wala ko ko. gis nga takk bi nee ko. non day bàyyi. yaay lamb. ndaama la. waa gis <laughs> <laughs> Ousseynou Ardo bett na ma indi na bëre bu ma bett ci moom. wax naa ko Mbagnick nee naa ko bi mu du ma moroomam mën na ko da ngeen a bëggante parce que école da daan daw ci man ci ci ñoom ñaar ñëpp xam naa ne dañoo bëggante parce que gis na làmb promoteurs yi ñooñu gën a doon ay amateurs lu ñu yëkkati ba def ci seen xaalis rek yaakaar nañ ne dina leen mën a yóbbu fenn fii dégg loolu li may wax tey booy yi ay xale doo ko fi nekk mais amateur yaa ngi toog da gis làmb mu am balaa grand combat bee jot ñëpp jug dem ñibbi mais ñëpp a ngi toog di xaar parce que xam nañ ne ay xale lañu lamb mercredi ku ko ñemee tëgg kenn ñemewu koo tëgg boo demee ba ko tëgg rek am nga confiance ci li ngay tëgg ak li nga xamante ne moom nga dugal sa xaalis waaye mbañik la mu foowoon ci ardo defe naa ne lamb ji dina mën na gën a yàgg tuuti ndax mañik yaakaar na ne bu ñëwee day jàpp ardo ak saa ko mais ardo fonk na lamb ji mbañik fonk na lamb ji li ma koy conseillé moom moom mbañik wala boog li nga yaakaar ne li ma yaakaar ne moom la war a bëree na jàpp ndax xale boo entraîné mu entraîné looy def lu nekk day wóor loo def lu nekk le woykat waxoon na ko nee na looy defati na lay leer waaye ñoom ñaar ñi ku ciy def na la leer sinon mbetteel dina la ca fekk bàyyi ji li looy defati leer ardo looy defati na lay leer Mbagnick moom la Ouzin wax ñu xool ñoom ñaar ñaari xale yi bëri nañ ambiance am na ñoom ñaar tactique de jeu am na ci làmb ji jël na tànk ardo ñu jargandalu daanu ci suuf jugaat continuer waat action bi ñoom ñaar fi mu toll nii actuellement ku ci nekk bokk na ci combat bi li liñ daj ci mystique yëpp man da yaakaar naa mystique feeñu ci combat bi actuellement. wax na la ko sànq ci xale yi doon bëree xale yi nañ gën a fonk entraînement ndax ñoom ñaar ñi boo xoolee xam na ay xale yu ndaw lañ mën naa ne ñi fi bëree premier combat ba neuvième komba ñoom maguñu ci kenn mais liggéey ak sa gëm seen bopp moo leen yóbbu fii ñu àgg ndax ma Mbagnick boo koy xool bi muy bëree ca tournoi ba ñoom bi désert dafa tuuti woon. mais par rapport ak ko xoolee di xam ne am na fu mu teg làmb te liggéey na kii di Ardo moom tamit xale la boo xamante ne nii boo ko gisee da ngay xam ne carrément sànq am na benn mbër bu moo ko wax fii nee na ma kii dafa teel a bëgg entraînement bi ma déggee ne day bëri gëmuma ko takka moo ngi koy bëgg a takkaat moo koy bëgg a takkaat mais nag bàyyi ji li mbër du maye. Ah. mbër du maye. Ardo ni muy ajee loxo bi bëgg mbañi keneen dugg ci wet gi mu mbot ko wala boog mu yaakaar la mu liggéey ba di ko may man d'accord ma loolu. wala pataxal wóorul ci làmb. wóorul wóorul parce que fi mu toll gis nga loo may sa morom bu ko jëlee nga ñàkk. tàqalikoo nañ. Ardo Mbagnick ñu ngay leewaatoo ñoom ñaar. Ndeysaan. Ardo door na jël na coup. Ardo ni xeexee est-ce que baax na. est-ce que ni xeexee baax na. Mbagnick nga koy xool. Ardo daw na daa bëgg a jeexal combat bi. Mbagnick nga ngi door ci suuf. Ardo Mbagnick Mbagnick Kaïré Ardo Golf Gaynde ndaysaan kii nekk écurie Boy Kaïré papa moo yor écurie bi kii nekk Golf Gaynde ndaysaan zam moo indi ñaari xale yaa ngi noonu fu ñuy mujj ñoom ñaar préparation mystique bi yàgg na fàqat na ko war na ko ndomba Ardo est-ce que nga ci génn est-ce que di nga ci génn Ardo est-ce que dina ci génn dana ko mbot est-ce que dina ci la eh, waaye xale yi bëri nañu <laughs> eh, ji li waaye lamb xale lamb xale waaye reporter xale reporter xale waaye sax xale waaye waaye sax xale sama xol dafa sedd sama xol sedd na kenn démérité wu ci ñii tey li ñu defee stade bi tol nii dégg loolu li mu la nañ mottali seen contrat rek ku daan jëm ca kanam ku ci daanu di nga amaat combat xale def na la ñu def. xam nga kan laa yërëm. déedéet. ki daan. Eh, koo koy am soxla. ndax ca kaw la jëm. dañu lay laaj. moo ma jaaxal. noo lay wax ji. maintenant est-ce que xam nga ne xale yi ñëpp a bëgg a yëg. ñëpp a daan dem daanu xaar. waaw loolu la de. ñoom ñaar ñi Ardo ak fi mu toll nii bu ñu daanee. yëg nañ ca kaw. xam nga ne ñoom ñaar suñu def Fatick moo ngi feeñ ci kenn ki. Ah! suñ def Fatick moo ngi feeñ ci kenn ki. nan nga ko mën a xame xoolal ñaari mbër yi. xool am nooy nooy bu baax. non dégg loolu li ma la wax suñ def Fatick feeñ na parce que gis nga boo ñëwee jàkkaarloo sa moom ne kutoo kut làmb ji day jeex su làmb ji yàggee rek effort bi nga def ci làmb ji force mu feeñ. ndax ki taxaw di la xaar nga bëgg koo force bëggoo imposer boo ko imposer te jàllul rek dépassé nga plus énergie que moom moom mi taxaw di xaar waaye saa boo dépassé énergie. fekk moom la mu la nga yaakaar moo fa nekk nekk fu boo doolee ci kawam lamb ji day jeex kon ñaari xale yaa ngi noonu bàyyi ji li ñaari xale yi xeex nañu bëre nañu bàyyi ji li Ousseyn ngi noonu la ndeysaan dégg ngeen li mu wax Ardo Mbaysaan ak Mbagnick Kaïré. dégg nga maas ne li gars yi foogoon li ak li am bokkul lu tax mu wax loolu. ah moo ko xam. nettali sa gént bëgg a nettali gént moom. ah ci seytaane la bokk. seytaane la bokk mais Ousseyn ñi doon joxe favori ñu bari. kan lañ joxoon favori ci ñoom ñaar. keroog Serigne Ndiaye. croyance dafa ne ma. ñaay booyee kan mooy favori. mën na ko xamuma ko. parce que ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu. dafa ëpp lu mu bëree. ak fi mu duggee. mais ñoom ñaar ñii amul favori. cinquante cinquante la peut-être Mbagnick combat yu bëre peut-être xeex bi da ci ëpp mais Ardo su ñëwee dee bëre kon kii kuy xeex ak kii bëre bañ na ko ba dañ ne bëre dóor bu doon lu simple la ñu ne peut-être Ardo moo ëpp avantage mais comme que bëre dóor la ñu wax Mbagnick bu dee xeex di bëre am na avantage Ardo tamit bu dee bëre di ci boole xeex am na avantage ñoom ñaa cinquante cinquante la man moom làmb amoon lu ma ciy ragal bu fekkoon Mbagnick moo moo moo ëpp soixante quinze pour cent dama la Mbagnick a mën bu a mën la Ardo moo mën parce que kenn du ma kenn joxuma ci ma lekk kenn joxuma ci ma naan mais ñoom ñaar ñi cinquante cinquante la moo waral bi ñu jàppante mu metti jàppante bu yàgg bii nag yëpp noppalu la gis nga jàppante bu yàgg yëpp noppalu la. arbitre bi àtte xoolal léegi kan moo ci sonn ah. aussi <laughs> ne moo ngi feeñ. Ah. xoolal ñaari xale yi. wax nga dëgg de. non yow mooy yow ñun ñun. ku doyal ci lamb ci de. moo te dina gën a yàgg. Ah. bu ñu taxawee jàppante wuñ bu ñu jàppante waatee. bu ñu jàppante waatee. dinañu téye ñu noppalu parce que am na ku ci sonn ñoom ñaar. Ardo jox nañ ko avertissement waaye public am amateur yi wala public bi ànduñu ci. arbitre bi nag xam na lu tax mu joxe avertissement ci ñoom ñaari xale yi. waaye en tout cas daal mbokk yi. Ardo moom moo leen woon ginnaaw. Mbagnick Kaïré ngeen jàkkaar lool. Ndeysaan Amadou production moo ñu woo fii ci arène national fii nga xamante ni làmb ko moom fii nga xamante ne ay ndaanaan yu nekk laale nañu fi arène bi yàggul de waaye ay mbër daanu nañ fi ba taay Ousseyn. mais nag man am na lu ma jaaxal. muy lan. Magic ba ma daan gis. dese naa ko gis tey. lu tax loolu. xamuma ko. lamb nag ñu ne lay dikkee. mais Magic ba ma daan gis. gisuma boobu Magic tey. doo mbër xaaral ma laaj njaga doole li Ousseyn wax moo ko gisee. Magic daa sonn. Oh. daa jël poids si combat bi gisoo ko. Oh. daa sonn daa jël poids gisoo ko nii mooy loolu yaa ma gën a xam. moo xam loolu de. Paris du wërëgul Paris. <laughs> ku nekk sa forom ku nekk sa forom gis nga kon la ma la doon wax. kii di njëkk a doole dëggal na la ko. boo xoolee ñaari xale yi ni ñu commencé. tension bi fa mu tolloon commencement ba. dafa li bu doon courant la ñu ne bés tension la. ñoo ngi taxaw. lewtoo bu yàgg bi yëpp dañuy noppalu mais bàyyi ji boo xoolee lewtoo bu yàgg bi. waaw ba lewtoo bu yàgg bi. da lay changé xolal xolal gis nga li mu la dañuy dañuy reculer noppalu parce que di lewaatoo nii te dóoraloo jàppaloo entraînement la bàyyi jiili te contact boo jàppante doole ngay fournir boo bëggee taxaw lewtoo lewtoo bu yàgg da ngay gën a perte énergie. da nga góor balaa yëpp. ñam ko. billaay yow ñoom ñaar ku ci nekk natt na moromam ci doole. actuellement ku ci nekk xam na lu moromam di saf. fi mu toll nii gérer wala aspiré jege waaye en tout cas kenn amul favoriser ci combat bi. jàppante nañu non am ñoom ñaar ragal naa am ku xeex wala ku ci yóotu tànk moromam. te bàyyiwoo ci xel ñu la ngoro rot Ousseyn. waaw ñoom ñaar ñoo xaw a tolloo. ñoo xaw a tolloo mais Ardo nag boo xoolee buy xeex. ni muy ni muy ni muy xawee sëgg wala ni muy xawee kii man d'accord a ci parce que mbër booy lewaatoo moom da ngay siggi di ko xool buy jóg nga mën koo gis buy départ di ñëw di dal sa kaw nga mën koo yëg mais saa boo sëggee buy départ di ñëw boo bëggee sigg bu desante yow boo amul sant dëgg mbañik fa muy dóor jëlaat na tànk ba Ardo est-ce ci génn Ardo bi yoon di nga ci génn jëlaat na tànk est-ce nga ci génn Ardo est-ce di nga ci mën a génn est-ce que dina génn Ardo mbañik jël na tànkam Magny jël na tànk Ardo Magny da ko bëgg a képp lu mu naat Ardo li mu bëgg a def du sotti Ousseyn du sotti du sotti du sotti Ardo Magny wër na ko ndomba mu ngay dóor Magny nga ngay dóor Magny nga ngay dóor Ardo daa bëgg a jóg Magny wër na ko ndomba ma ngay dóor ci suuf Magny nga ngay dóor Magny nga ngay dóor Magny nga ngay dóor Magny nga ngay dóor Magny wër na ndomba Ardo oh dóor yi metti na waay plaqué na ko bañ na Ardo bañ na Madika ngay dóor Ardo bañ na Madika ngay dóor Ardo bañ na ah Ardo lii penalty la ci làmb munoo cee génn déedéet gëmuma ko boo ci génnee ma xam ne ndaanaan la Ousseyn. mais nag baa jili mbañ bu deful ndànk rek Ardo dina jóg. ah wóor ndomb boo ko defee da ngay jàpp bu mu nga concentré wu mais soo bëggee dóor. bëgga a def leneen lu ci bokkul bés bu la gënee concentré parce que léegi njëkk a gën suuf moo la gën a mën a xam pieds yi muy teg na def ndànk rek. daan na ko. Mbagnick daan na Ardo. da ko wër ndomba njett ko ci suuf. Mbagnick daan na ko. laa ilaaha illallaah. Mbagnick daan na Ardo. Mbagnick daan na Ardo. Mbagnick daan na Ardo. sant yàlla sant yàlla. combat bi dafa yàgg dafa mën a bëri naan la. waaw bëri la dama gis nga jàpp ko nga jàpp ko yéen. kii champion la Touba. waaw lamb la bàyyi leen ko lamb la leen ko lamb